yërëm yére bi yegg na di nuyu bépp sénégalais bu ci réew bitim réew bi leen di seetaan. Mhm. di leen aussi ndokkeel ci seen euh, taxawaay ci leeral lal askan wi lu lëndëm lu baree baree bari ci tëddaayu ndee ji seex bi ngeen di def loolu defe naa ñëpp nangu nañ leen ko. Mhm. yéen doon xarab dem ba bëri sax nangu nañ ne léegi nag ay lay wen nag yéen soppeeku leen ñoom ñooy soppi gis-gis. Mhm. en tout li nga wax léegi.